jërëjëf sëriñ Moustapha waxtaan wi jotal na sëkk sëkk sëkk sëkk li taxoon ñu jox la ko lépp matal nga ko sunu xol sedd na ci guy yu ñu ngi lay ñaanal suñu borom waaw sëriñ bi nee na ñu jéggal gu njuum tey nag waaye wax dëgg yàlla lépp rafet lépp rafet sant nañ bu baax a baax a baax dina ñaanal suñu borom yokk laa dëgëral yokku laa kattanal yokku laa dimbale ba li nga yéenee liggéey ci lislaam lépp nga liggéey ko nu kawe njort di fàttali rek ne Serigne Moustapha mii mu ngi sos daara fii ci Touba daara ju tudd Ihya ulumi diin muy daara joo xam ne dañ fiy jàngale alquran ak xam-xami diine te amul fay dara mu koy def fi sabilillah kon ñuy sàkku ci kilifa yépp rek ñu bàyyiwaat xel daara jooju képp ku ci am ku toll ci jàng te am jaaxle fu mu fu mu dugg ba jàng mu xam ne daaray Serigne Moustapha mi mi ngi fi kon dañuy daal di jox Serigne Abdoul Ahad Niang mu def ci taaliq bu gàtt maanaam commentaire boo xam ne ci juróomi rek lay toll bu ko defee ñu daal di wéyal kàddu ci keneen insha allah aoudu billahi min alsheytani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina rasulillah wa wa sahbihi wa mawala mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah ginnaaw bu ñu sante yàlla suñ borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi wa ala wa sahbihi wa sallam ñi ngi am ci yëkkati kàddu yi ci njëlbeen ñuy nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ci jotaay bi di ci jiital suñu nijaay ji e, sëriñ Modou ñu ngi koy sant ba di sant sëriñ Alhaji ak mbooleem njaboot gi aju ci sëriñ Aliou ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di am mbégte lool ci yëkkati kaddu yi ginnaaw bu ñu ndokkeelee suñu conférencier bi nga xam ne dëgg-dëgg xaj na fekkiwun lu bari ci waxtaan wi waaye liñ ci jot a fekk tegtale ne jotaay tomb bu am solo la doon waxtaane waaye tomb bi Euh, liñ ci dolli ñun mooy ndokkeel mbokk yi ko tànn ndax day tomb boo xam ne actuellement fii ñu toll société bi da ko soxla ndax bu ñu tollee ci jeunesse boo xam ne dañoo toll ci seen digg doole mën a lem ni mbalaan li ñu baax ñi doon jàngale sànni yor seen doxinu bopp laaj na nag jëlaat tomb bu mel ni waxtaani wat ci njàngaleem foo ci romb ña ko taxawee ñu toll ci seen diggu doole la ndax doomi aadama yi dañu traversé ñetti étape doon gone toll ci sa digg doole delluwaat cig mag ndaw guubu nga xam ne nag moom lañ soxla lislaam ci lay dëgëre lépp lu nekk ci ron lislaam it ci lay dëgëre kon ndaw loolu laaj nañu càgg tàggat ko yar ko ba teg ko ci yoon mooy waral bu ëllëgee mu bokk ci ñi nga xam ne dafay liggéey ci société bi moom la woykatu olof bi dañ wax ne garab su demee bay ndaw jubbantil mu jub di su dee mag ba am kàttan balaa jub nga damm ko xaleel su demee bay ndaw jubbantil tawan ko ñu saxal ko ci ay teggin ak ab yar mu màgge ko kon bu ñu koy wax mooy ndaw lii toll ci digg doole fii ñu toll nag day jamono joo xam ne billahi alladi laa ilaha illa huwa ku moytuwul laax dana ko lakk lu tax ma ne ku moytuwul laax dana ko lakk mooy gaayaa ngi jàbbuti wéy rek gaayaa ngi sos di wéy rek lu leen neex ñu lëmas ko ci yoonu murit ne ci la bokk man duma dem fenn jeunesse bi dama koy wàcce ci jeunesse su maanaam le mouridisme mooy euh, mouvement bi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa andi woon pour réforme tegaat nit ñi ci aw yoon désordre wala ñu tudde anarchie mi ngi dugg li ñu tudde ba tàmbali na dugg ndax li Sëriñ Tuubaa tëraloon doot bu fekkee ne ndaw ñu toll seen diggu doole pour war ko dund diglul ma wax li Sëriñ Tuubaa tëraloon ak fan la ci ndaw ñi toll fii ñu toll Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee mag ñi àndoon moom ci seen diggu doole lañ tolloon mu tàggat leen yar leen wan leen fi war a teg seen tàgg lu leen sëñ bi waxoon dana leen na ngeen roy ña nga xam ne ñoo doon roy rasulullah ànd ak moom te mooy as-sabiquuna al awwaluun minal muhaajirina wal ansar ñooñee fu ñu tegoon seen tànk te war a teg seen tànk ci muñ ngeen message bu diine mën a jàll foofu la sëñ Tuubaa tegla woon euh, ñi àndoon moom seen tànk ñooñee euh, boo boo bëggee xam lii leen sëñ Tuubaa santoon ñu war koo def demal jël xoqal bu kaw xoqal bu kaw ci la sëñ Tuubaa tënk képp ku koy woote woo melakaan bi nga war a yor li may wax na bu ma daanee nit ko ci sa bopp yow mi toog nit ko ci ñi nga génération bi nga toll est-ce que yaa nga foofu wala déet soo fa nekkul nag xamal ne woote woo sëriñ bi moo gën a yomb doon li sëñ bay jaxate doon wax naan murit dëgg yombul la yombay ka wax ne man ab murit laa te doo ab murit waaye murit bi kulli ma taxmiluhu al kalimatu min maanan soo ko doon xool ay benn benn ngay gis melokaan yaa ngi nii sëñ Tuubaa nee na day bokk seen melokaan dañuy jaay ay caaxaan jënde ko tudd yàlla mi leen sàkk nelaw guddi dañ koy jaay ngir deyaaleeg seen borom ba bët set baaxu fudulan bi dikrillaahi xaaliqihim fan naw ma fi leyli baaxu bil munaajaati waxtu guddi masaan jot ba ngay bànneekoo nelaw ci sa kaw lal ñoom ña ngay bànneekoo jaamu seen borom ba bët set taj fol madajia fii leylin junubuhumu naasina salma walayla bil bushaaraati dañu doon ñoo xam ne dañuy ragal yàlla ci njëlbeen ragal yàlla ci mujj ragal yàlla ci zahir ragal yàlla ci baatin it fil bidaayaati xawfu dan bi yasjuruhum wa fi nihaayaati ijlaalul jalaalaati dañu doon ñoo xam ne xam-xam mooy nekk seen màndarga seen jikko mooy lewet doon toog ci barab di garam place di wax lu ñoroog lu ñurul al ilmu siimatuhum wal xilmu daydanuhum doona daawi wa inkaari l maqaamaati dañu doon ñoo xam ne dañuy ànd te yàlla tax di waxante dëgg seen biir te yàlla tax lu ñuy wax yàllaa koy lal wa rufqatun wa hiya ixwaanun lahum himamun maal wafay bi sidqin fil uxuwaati dañu doon ñoo xam ne dañu xam yoon wi ñu war a tënk seen bopp ñu jaar ca te duñ ko wàcc ba mukk te mooy yor yi gaa yu baax yi nekkoon arkaanu bayti jamii alqawmi arbaatun biha yuassasu bunyaanu alwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun wa uzlatun an shuyuuqin bil ishaaraati léegi eh, nañ xool lii nag ñun fan lañ ci toog ku nekk fii kooku la ñu tudde muridullahi muridullahi mooy ku nekk fii Sëñ Tuubaa wax ñooñu la wax sax ne tuubaa li abdin muridin saadiqin lahumoo bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyaati ñii ku leen sopp ku leen bëgg ku leen jox addi yàlla bëgg la ndax ñooy ci ñi jaar ci yoon léegi nag ñun fu ñu nekk muridullahi la ñuy woote woo waaye fii liñ fi xam mooy muridul kalaam yi muridul taam yi muridul manaam yi ah, muridul maal yi loola fi gën a bari de muridullahi yombut yéen a ko gën a xam idil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmani haytu qasada murid mooy ku bëggul lu ma yàlla sëñ Fallu nee na ñëpp murid lañ waaye minkum wa minkum rek moo fi nekk minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul axira waaye muridul kalaam moo fi gën a bari koo xam ne wax rek garam place doo të du ub sa tamañ ji mukk toog rek wax foo fekkee wax jëtu tey sëñ Tuubaa nee na Abubakar ni Siddiq da daan fab aw doj di ko teg ci gémmiñam ngir ragal a wax te kooku muy alxalifatul awwal li rasulillah ndegem aboubacar moo doon toog aw doj ci gémmiñ ngir ragal a wax fa bi abi bakir min ab min babil awla muridul kalaami muridu taami lekk rek lekk rek gémmiñ gu dul fenn bi moo fi gën a bari muridul maali koo xam ne alal noo ko mën a amee baax donte da ngay jaay ci kaw nit donte da ngay dem bitim réew fekk keesu tubaab nga yéeru andi naan joxeel addiya tabax jàkk ku la ko wax delloo keesu tubaab bi nga naan joxe addiya muridul mu wax na murid murid naw bi koo xam ne du xippi nelaw rek boo xasee départ ci kaw lal bi jant maanaam danga ci kaw nga door a jóg am na ñoo xam ne maanaam bu ñu xasee départ duñ jóg ju julli fajar ñu rarement ñoo koy def am ñoo xam bu ñu xasee départ jant maanaam danga ci kaw ñu door a jóg kon jeunesse bi fi ñu nekk ak fi Sëñ Tuubaa doon woote jëme dëgg-dëgg ma tëjee ko leen na nag ndax commentaire bi euh, liñ ci bëgg lépp mënu ca dugg waaye daal képp kuy toll ci diggu dooleem na bàyyi xel lii may waaj a wax dañu koy nett li jële ko ci sëriñ bi mu dis gan te kenn ku ne mën naa nekk sab yóbbal nga yóbbuloo ko ci waxtaan wi sëñ sëñ Moustapha wax léegi dañu wax ne sëriñ bi nee na nit ki amul lu may ñeent jëmbam ay bokkam alalam ak jëfam nit ki amul lu may ñeent jëmmam ay bokkam alalam ak jëfam nit ki amul lu may ñeent nit ki saa bu faatoo ñàkk na jëmmam lu fa des ay bokkam ak alalam ak jëfam mu ne bokk yi saa buñ ko waajalee ba mu jekk raxas ba mu set takk ba mu dëgër fas yéene ko yóbbal yóbbal boroomam ñàkk nay bokkam loo bëgg-bëgg nit doo ko bëgg mukk ma tëddal ko ci biir bàmmeel donte sa baay la donte sa yaay la donte sa soxna la donte sa borom kër la ku mën a doon ci yow ba tëdd biir bàmmeel jotee nga bàyyi ko mu tëdd fa kon ñàkk nay bokkam ci buñ ko waajalee ba noppi lu fa des alalam ak jëfam mu ne alal ji buñ koy dugal ci biir bàmmeel alal ji danaan ko man du ma dugg fii fii du ma fi dugg damay dellu ca mbokk yi doon na ñàkk na alalam lu fa des jëfam sëriñ bi ne looloo tax nag foofu la jëf jëy moom lu ko jëf jëy wax jëf jë danaan ko ah yaa ma jëfoon de su dee lu baax yaa ma jëfoon bu dee ab safaan it yaa ma jëfoon moo tax jëf mooy dëkkandoo bi mujj yow moo tax jëf mat a sellal loolu la suñ Saliou Mbacke doon wax ca waxam ja nit ki amul lu may ñaari biir biiru boppam ak biiru bàmmeelam biiru boppam bu mu ko yitteel ndax li ci war a nekk yàllaa ko ciy def biiru bàmmeelam na yitteel ndax lu mu fa deful du ko fa fekk yal na yàlla tënk ñu ci njub jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te jiital ci nuyoo bi suñu bàyyi suñu kilifa mi ànd ak jotaay bii di Serigne Modou Ndiaye indi Serigne Aliou Ndiaye jërë ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ak mboolem ay rakkam ba lim yéenee liggéeyal bàyyi bu baax la si bu baax def mu defee ko ni mu ko damay ko xeebu lool nag ci njaboot gi ndax magu ma raw ma waaye da la sëñ bi waxoon sëñ ma si sa ndongo foofu rek lañ nekk laa taxalu shay'an bi xayri isni fal isnu sottin bi qabuli sha'ni fas ñu yéenee mukk jëf jenn jëf yoo xam ne dëppwul ñu digal ñu ko nag ñu ngi waxee ci kàddu suñu xalifa sëriñ Mamour Ndiaye moom suñu Mbacke Ndiaye mi nga xam ne moo nekk ci bopp suñu lépp di jaar ci sëñ Mbacke Ndiaye moom sëñ Mbaye Ndiaye seen kàddu la waxee ak sëñ Matoumba bi nekk sëñ Abdou Fadel ñu ngi leen siyaare bu baax tey jégalu bu baax a baax liñ may yónni ma ko muy kàddu yu ak kàddu yu ak kàddu yu jokk mbokk te nan gën a rafetee ngeen ko defee. reportage boobu bii jàll muy bàyyi sëñ Ndiaye nga dafa am ku ko bokkaloon ndey ak bàyyi bokk bëgg bëgg bokk pas-pas bokk yéene bokkoon lépp ba ñoom ñaar képp koo xam ne xamoon nga xam nga ne ñu ñaar kenn lañ woon maanaam dañ ñëw ci forme ne ñaar lañ waaye ci fond kenn la ñu ngi mën a jëmm ak katégor. loolu yi ngeen dégg ci reportage bi ñu ko doon wax ci bàyyi sëñ Njaay Gédé loolu rek moo nekk ci sëñ Aliou Njaay Gédé ci teel gi wattu alxuraan ak génn woon ci xam-xam ak itam jëfee xam-xam la ndax xam-xamu kese kat luy am na benn waykat arab kuy way ne law anna fil hilmi min duuni tabqa sarafun la kaana asrafu xalqullahi iblisu borom xam-xam bu bari mooy dafa ragal yàlla wala mooy maye tëdd ba kon iblis ay gën ci mbindeef yàlla yëpp waaye nag ñoom dañoo xamoon loola daan jëfee daan jëfee seen xam-xam doonoon ni taalibe yi si tubaab yi dëggoo dëgg sëñ Mamour daal nee na ngi sant bu baax a baax rakkam yu baax yi nga xam ne ñoo jël initiative bu am nga xam ne dañoo delloo kon bi ci taali rek sëñ Aliou képp ku koy defal dara boole ci dara bàyyi si rek tombati woo dana loola def teg ñu ngi sant baax a baax lool wax dëgg yàlla lu seen tànk ak yoon wii ngeen aw bu ngeen ko wàccu xam ne bàyyi Serigne Ndiaye Guédé rakkam ju baax bi Serigne nañ ko wala nekk nañ ko fa ngeen leen di fekk ndax ci yoon bi rek la tegewoon sëñ Modou ñu ngi lay ñaanal yàgg sa rakk yi ngeen yàgg fi lool te ànd ak wér tey am yi ndam rek. ci màggalu Kazu Rajab gi ngeen ngeen xam ne mooy seen bis di seen lépp lu ngeen am mën nañ ne ci ngeen ko amee ndax ñun murid yi dañuy wax ne lépp loo xam ne am nañ ko ñun ñu ngi ko amee ci bisu màggalu Touba waaye lépp loo xam ne yaa ngi aju ci kër Serigne Aliou Ndiaye mën ci bisu màggalu ndax noonu la ko fonke woon ñu ngi la ciy ñaanal bu baax nga yàgg koo def yàgg cee amee ndam tey tey sàkku ci yow yi nga ñaanal ba liggéey bii nii nga xam ne ñu ngi def nga ñaanal ñu ci buñ ci gis suñ bopp buñ ci découragé buñ ci it xeebante buñ ci boddi def nag ñu ñaanal ñu booloo gën a nekk benn gën a liggéeyal sa baay bu baax ba ak sa maam bu baax ba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu lim rek ñi nga xam ne jot nañ fee teew délégation bu ci nekk itam dañuy lim ka ca jiitu rek mu yóbbaale ñëpp waa kër Serigne Mbaye Golbe teew nañ ci njiital Serigne Sang Ndiaye waa kër Serigne Abdoul Ghafour Mbakke teew nañu ñoom itam teewaay bu rafet ci njiital Serigne Abdoul Ghafour mu ndaw sëti Serigne Cheikh Bousso yëpp itam teew nañ sëti Serigne Moussa Kay itam ñoom ñëpp teew nañ sëti Serigne Afia teew nañ fi. waa kër sëriñ Aïssa Jenn teew nañ fi soxna Sooda Mbàkke mu sëriñ Moustapha Bousso moom itam teew na sëriñ Fàllu Njaay di xalifa sëriñ Mbàkke Njaay Ngeeraan moom itam teew na waa kër sëriñ Madiba Silla yi teew nañ ci njiital sëriñ Basiiru Silla di sunu kilifa di sunu sëriñ noo ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel waa kër sëriñ Mbàkke Kanni Bousso itam teew nañ ci njiital sëriñ Omar Bousso waa kër sëriñ Cheikh Ndiaye xarit Bousso tamit teew nañ ci njiital sëriñ Mamoun Ndiaye waa kër sëriñ itam teew nañ ci njiital sëriñ ma ci njiital maam sëriñ Ndiaye waa kër sëriñ Ndiogu Mbakke itam teew nañ ci njiital sëriñ Fallu Mbakke mu sëriñ Tafsir Mbakke waa kër sëriñ Baara Ñang imaam Gédé itam teew nañ ci njiital sëriñ xaadim ñang nuurul huda cheikh mahamadul amin baara ñang naka noonu itam presse bi fi teew tam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax bari na lool ci presse bi ñu fi teew sëti sëriñ Mbàkke Buso itam teew nañ ñu ngi leen di ndokkeel bu baax kon presse bi ñi ñoo fi jot a teew ku ci mel ne istiqama muy site internet boo xam ne bu am solo la di jàllale lu baree baree bari ci réew mi rawatina lu soxal diine ak al azhar Touba Mbakke moom itam di presse teew na fi moom itam yeete point net tamit teew na asiru itam teew na alxadimiya tamit teew na Touba Belal tamit teew na ñoom ñi ñëpp ñëw nañ ànd ak ñun liggéey bi ñu di leen sant bu baax di leen gërëm xam naa bu ci kanamee rek incha allah danañ limaat yeneen délégation yi ndax dañuy bëgg liggéey bi continuer ndax mi ngi gudd aoudu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذوي الرضوان والتمكين الشيوخ الكرماء أيها السادة الأعزاء إنه لا يسرني جدا أن أجلس أمامكم في هذه المناسبة كعادة دائرة مفاتيح البصري سلميا وأن أتناول الكلمة بالنيابة عن كافة الأحفاد لإزهار الفرح والافتخار لنا لحضوركم معنا في هذا اللقاء ونشكركم شكرا جزيلا على على جهودكم التي تكلفتموها للمشاركة معنا في هذا اللقاء ونشكره جميعا وخاصة سيد الشيخ محمود الجاي على جهوده التي يتكلفها دائما لاستمرار الأنشطة الجارية لدائرة مفاتيح البشري أيها الحفظ الكريم إن مما يعرض في هذه الآونة سنويا li daayiratu mafatihul bisri wa qad zaada min ramlaqatin mashhad xuduru haulai shaxsiyaati almarmuuxati fi lbilaadi wa nashkurukum jamian mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba ñu sante yàlla borom bi subhaanahu wa taala jullit ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo beeg siyaara bi Cheikh Sidil Mokhtar ñaan suñu borom mu yàkkal ko fi lool te wéral ko ba yéen jëm am ci liggéeyal Serigne Touba lépp mu defe ko na ko soobee di nuyu bu baax kilifa jotaay bi di Serigne Modou Ndiaye moom Serigne Aliou Ndiaye Guédé di ko siyaar bu baax di ñaan suñu borom mu yàkkal ko fi lool te di nuyu baax it mboolem rakkam nga xam ne ñoom la toogal ci jotaay bi. di wax ni kàddu yi mën naa bañ a gudd xëy na niñ ko bëggee woon waxtu yu gàtt yu moo tax duñ ko mën a amee noonu waaye dañuy gàttal suñu kàddu rek di wax ci turu mbooleem turandooy Sëriñ Aliou Ndiaye Guédé yëpp di wax ne wax ji sax xëy na wëñuñ ko woon dañoo ñëw rek ñu jox ñu ko ñu di ko wax waaye nekkul loo xam ne luñ waajoon la waaye dañuy jéggal bu baax a baax lépp loo xam ne dëgg dëng na ci kàddu yi ndax lu la bett man la waaye day liggéey boo xam ne turantu bi Serigne Aliou Ndiaye yi ñoo ko ànd ak su ak sëriñ Serigne Aliou Ndiaye Kéré yi mu nekk liggéey boo xam ne daayira yi ñoo ko sosoon ci 2013 biñ ko sosee 2013 ak léegi it suñ borom def na ci tawfeex ba li nga xam ne moom lañ bëggoon lépp te yéene woon ko ci biir si borom def na tawfeex ci ne am nañ ko. ndiki noonu it bis bii nga xam ne moom lañ taxawal damay wax ci turu surtout ci turu turando sëñ Aliou Ndiaye Kébé yëpp turando yi kàddu yi nga xam ne moom lañ ma yónni woon pour ma wax ko ñoom dëgg la ñoo ànd bis bii surtout sëñ Aliou Ndiaye waaye seen yéene ci bis bi mooy dañoo bëgg insha allahu taala baas bii nga xam ne sax dañ koy baas te waa daayira bi yi nga xam ne ñooy jubaluga ñëw di ko di ko baas bokk na ci seen yéene dañuy dem ba dañuy taxawal seen bâche boo xam ne seen bâche bu bopp la ñu di ko amal di fa defi conférence bi mu nekk bâche boo xam ne bâche bu ci ayib lay doon loolu bokk na ci seen yéene yoo xam ne incha allahu taala danañ ci àgg suñu des maanaam projet yi nga xam ne it mooy nekk ci bâche bi moom it bokk na ci seen yéene incha allahu taala bëgg nañ buñ demaatee ba ci kanam rajo yi nga xam ne moo fiy ñëw ñu di ko ñu di ci waxe ci ci ci ci ñu di ci defe conférence projet bëgg nañ insha allahu taala ñu dem ba mu nekk suñu moomeel loolu bokk na ci suñuy yéene mboolem mi euh, lépp loo xam ne daal def nañ ko fi ci ci ci ren ànd ko surtout sëriñ Aliou Ndiaye bëgg nañ bu déwénee kenn ñu ci jàppale dara lépp ñoo koy defal suñu bopp loolu bokk na ci suñu suñu ay ahdaf ñu ñaan kilifa yi ñu ñaanañ ci baax a baax a baax ba suñ borom mot li loolu xam naa kàddu yi kon dañuy taxawlu foofu rek ñu ngi sant bu baax it kilifa yi nga xam ne ñoo fi teewoon xëy na lu ñu ngi jégalu bu baax a baax bëggoon nañ mu gën a yaatu lool lool lool lool waaye sëriñ bi daal ñoo ngi lay tàllal loxo bu baax nga gën ñoo ñaanal ndax suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg de yàlla xam ne ne kawe na lool lool lool sax xëy na léeg-léeg li si xol mën a nëbbu sax làmmiñ du ko a tubb waaye buñ koo jàppee noonu te mu woyof ci sama kàddu yi waa daayira bi nee na ñu ngi sant mboolem ñi ngi teew ñépp ñi si mbort laa doon lim képp koo xam ne tudduñ sa tur nga jéggal ñu ko rek nga xam ne doomu mooy fattu waaye ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi seen tànk yi nga xam ne moom ngeen doxit ñëw fekk suñu fii yàlla na ko suñu borom def aw yiw te defal leen ko seeni fii misaani xasanaatikum ci barke Sëriñ Tuubaa sant nañ leen bu baax a baax ci wuy si ngeen wuy si ndax ku ne xam ne ne bis bii xat na lool lool ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw ànd ak ñun bis bi loolu ak yëpp mënu koo weesu te it saxoo nit ki mënu koo weesu jox nit ki sa bopp mënu koo weesu kon daal sant nañ leen bu baax a baax sant moom mënta weesu cant te man lam yaskuru naasa laa yaskuru llaah ku du sant nit ñi du sant yàlla kon da ngeen ñoo loo xam ne seen bu baax dong la waaye kon sant nañ leen bu baax baax baax gërëm leen wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi lancé appel yi ci mboolem parents d'élèves yi nga xam ne ñoo féete ci kër ak mboolem bépp taalibe Sëriñ Aliou fépp foo mën a nekk ñoo ngi lay fàttali bu baax daayira turandoo yi ndax daayira turandoo yi yëmul ci daayira bi sa rek képp koo xam ne am nga am badal wala am Aliou ñoo ngi lay ñaan nga maanaam jokkoo Sëriñ Bada Fall mi nga xam ne moo nekk Dakar boo jokkoo moom bu soob yàlla dana la fay fa mën a nekk bu fekkee da nga nekk mbuur wala nga nekk euh, jiwaadoo fépp foo mën a nekk rek boo jokkoo ña fa ña fa ña fa nekk soob yàlla danañ la teg ci yoon bokk kooku membre boobu nga bëgg a dugal doo am benn jafe-jafe ñu ngi tàllal loxo ñëpp daal daayira bi ubbil nañ ko ñëpp daayira bi sëkk seen ñaal yi dañ ne dañ ne daayira bi sëkk seen ñaal yi rek waaye bépp sët boo xam ne dangaa bëgg a ñëw pour bokk ànd ak ñu liggéey ndax liggéey bi liggéeyu Sëriñ Tuubaa dong la liggéey suñ tubaa nag dafa ibbeeku ngir ñëpp képp koo xam ne bëgg nga ñëw te bokk ci daayira bi yitteel la pare nañ pour tàllal loxo nga ñëw ànd ak liggéey kon daal appel moom dañu woon nañ ko laase mboolem ku ñëw ci baax bi nga yóbbaale ko mboolem taalibi boo xam ne ñëw nga ci màggal nga bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax ibbi nañ ci ñi bunt ñëpp ñu ngi jégalu bu baax a baax ci kàddu yi xam naa kilifa yi wax dëgg yàlla toogaay bi mett na lool waaye ñu ngi koy tuub bu baax a baax di ko jégalu bu baax a baax heure bi waroon naa fekk ngeen yeewu ko bu yàgg-yàgg waaye ñu ngi leen di jégalu bu baax xam nga programme moom ni la demee léeg-léeg ni ngay bëgg ni ngay bëgg ak ni nga koy ni ni muy demee di demee noonu ñun ñii di wax sax yàlla xam ne ni ñu programme woon waxee ak ni ñu ko bëggee woon suñu borom dugal mu sottee noonu kon daal sant nañ leen bu baax a baax gërëm leen ci turandooy ci sëtu ci turu turandooy sëriñ Modou bu ñëwee incha allah sëriñ Modou si Axmad dana wax ci turu sëriñ sëriñ Aliou Ndiaye Guèye waaye man dama doon wax ci turu turandoo sëriñ yi kon daal appel boobu dañuy lancé ngeen bàyyi ko xel yéen ñëpp incha allahu taala képp koo xam ne daal bëgg nga ci ay leeral suñ Bada Fall mi nga xam ne moo féete Dakar boo ko woowee incha allahu taala dana la teg ci yoon numéro numéro lañ leen génne wala képp koo xam ne dangaa nekk Touba gii te bëgg ay information ci daayira bi boo ma woowee man insha allahu taala danaa la teg ci yoon waaw xam naa ni war bi sax mën naa laaj ñu jàllewal ko képp koo xam ne soxla nga ko rek sama ni war a 77 la 647 00 64 wala nga def 76 647 00 64 muy ñaari numéro yi ko 77 647 00 64 wala 76 647 00 64 boo ñu woowee insha allah bépp information boo xam ne bëgg nga ko ci daayira bi ak ni muy doxee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 alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala afdalil anbiyaai wal mursaliin sayyidina wa nabiyina muhammadinil amiin wa ala aalihi wa ashaabihi dhawi ridwaani wa tamkiin wa man iqtafa aasaarahum ila yawmi ddiin wa baadu أيها الإخوة المسلمين أيها الإخوة المسلمون أصحاب المعالي والسعادة والسادة والحضور الكرام نحييكم بمناسبة هذا اللقاء المبارك تحية من عند الله مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا نقدم أغلظ الذكر والتهنئة لجميع من حضروا للمشاركة معنا في هذا اليوم العظيم يوم الشكر والذكرى والدعاء ولصالحين الكرام وندعو الله تبارك وتعالى لكم طوال العمر وصحة البدن والعافية wa risque waasi wa najaa wal baraka wa saada fi dunia wal axira tey bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu daayira Mafatihul Bichri bi lëkkale sëti Serigne Aliou Ndiaye Guédé yépp ñuy jël nuyoo ba gën a kawe ak siyaar ba gën a kawe di ko jëmale ci alxalifatul am li tarixatil muridiya as Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke ayyadahu Allahu wa nasara di nuyu itam Serigne Babacar Ndiaye xalifa Serigne Ibrahima Ndiaye Guédé waaye di beral am nuyoo Serigne Modou Ndiaye Guédé mi nga xam ne moo fi toogee jataayu Serigne Aliou Ndiaye Guédé ak mboolem njabootu Serigne Aliou Ndiaye Guédé bokki julli di fi ndaje. ñu di leen wax marhaban ahlan wa sahlan di rafetlu seen teewaay bu baax ci barab bu sell bii ndax bi ñu wootee wuyu ngeen ca anam ba ngeen war a wuyoo bi nga xamante ne daaira bi jub nañ dugg ci kër yépp wax leen bis bii ñépp teew nañ ci anam bañ war teewe te loolu lépp di seenu baax ak seenu woyam ak seenu fonk kóllëre kon duñ def lu dul sant leen gërëm leen di ñaan itam lépp luñ fi amee ci aw yiw ñu bokk ko ci darajay Cheikh na Ahmadul Xadim di sant itam suñu kilifa yii ndax dinga nga xamee ne bis bii am na konoon daayira bi taxaw na mi ngi bàyyi koo ci seen ndigal waaye joxuñu ndigal rek téye ci seen loxo saa yu ne ñi ngi ciy dugal seeni xalaat ak seen anam loolu it di wane liggéey bi ñor gum leen ñor ñu ngi ñuy jàppale daal ci zahir ak ci baatin kon ñun itam ñi ngi ñaan ci daraje seen cuwaay yi nga xam ne amul lu dul moom sunu borom yàggal leen fi sunu kanam ba li ñu yéenee liggéeyal sëriñ bi yéene ko ci ñoom sunu borom defal ñu ci lu kawe njortum ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu daayira Mafatihul Bichri kàddu yi nag di kàddu yi soññee ak ñaaxe ak laay biir ñeel sama classe bii ñu gën a farlu ci sàkku xam-xam ak jëfe li ñu xam ndax alquran dafa wax ne iqra bismi rabbika alladi xalaq aaya boobu moo njëkk wàcc ci alquran te dafay soññee ci jàng yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam gëm gu mu gëm loolu ak xam gu xam loolu tax mu ne talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslimin sàkku xam-xam farata ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen Sëriñ Tuubaa itam di sunu yaakaar yi tey ak ëllëg ñëw di gën a feddi di loolu ndax boo demee ci téere yi mu bind yépp di ci jàngale diine balaa dugg ci di ko dox a dana soññee ci xam-xam te loolu di wane ñor ku ko xam-xam ñor ndax boo demee ci tasawul si xaar ma ngay wax ne yaa ayuha sibyaan laa tastaxilu an ilhuda wa bilulumi istaxilu fastaxilu bilxifzi wattilaawa wajtanibu majalis astaxawa mu wax ne yéen ndaw ñi boo leen soxlawu lu xam na ngeen soxlawoo ak mokkal akub jàng te wattandiku lépp luy jataay yooyu texee yi jataay yooyu texee yi nag mooy lépp jataay boo xam ne boo fa toogee doo fa yokkoo ci sa diine doo fa yokkoo ci sa àdduna boo demee itam ci sewul subaan Sëriñ a dafa wax ne yaa maxsara subbaani in xiftum ajal fa xaddimu taalluman ala al amal yéen ndaw ñi bu ngeen ragalee ak gàccewu ci seen dund gii na ngeen jiite woo na ngeen jiital xam-xam ci njëkk ngeen di jëfe ba la ñoo def daal nañu jiital ak xam ba noppi wax jii nag tënk na li ñu bëgg a wax lépp lii itam di wane xam-xam munta ñàkk ci ak dund ndax doomu aadama bu amul xam-xam day làmbatu làmbatu nag benn nga daj baa nga bañ a bañ daj te li ëpp nag doo daj da ngay làmbu Sëriñ Tuubaa bi mu sancee dëkk bii di Tuubaa ñor koo xam-xam ñor dafa tax mu ne waccaxal fu dë ban yàlla na ko def faw maskana taallumi muy dëkku xam-xam wa mawdia al fikr wa mawdia al fikrati wa tafahumi loolu lépp di wane Serigne Touba ñor ko ko xam-xam ñor kenn kenn umpalewul ne ba ci mbirum àdduna mii réew mu la cëpp ay boroomi xam-xam moo la gën a développé kon xam-xam ci ak dund xam-xam day jariñ nit ki ci ñaari wàllu yépp ci wàllu àddunaam ak ci wàllu diineem waaye Serigne Touba it wax na ne wa min makaidil lainil mujrimi siddul muridina ani taallumi nee na bokk na ci pexe yi iblis mu saay-saay nii dafay tere sama taalibe yi di leen dëdduloo saako xam-xam loolu sëñ bi waxoon na ko li tax nag ñu indi thème bii ak waxtaan wii mooy fàttali nees di mën a def ba wattandi ko pexe iblis yooyu ak pakkam yooyu nga xam ne mooy dox sunu digganteeg sàkku xam-xam ndax xam-xam kat leer la koo xam ne nit ki da ciy tegtaloo di xam li mu war a def ak li mu mut def di xam liñ ko digal ak liñ ko tere al ilmu bi nafsi nuurun tastadillu bihi ala al xaqaiqi misla nuuri lil ayni kullu aamin wa antum bi xayrin wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi bokki jullit fi déglo sëriñ bi moom mi nga xam ne moo fi toog toogaayu Sénégal bi ak mboolem bi di leen jot li am nuyoo am jantam ak gërëmam gannaaw bu nuyoo bi la mu cay teg di kàddu yu gàtt lay lool moo di sët yi sëriñ yi nga xam ne sos nañ ko parce que yéenee sof ci màggal gi mel ne dafa bokk yi nga xam ne yi sëriñ àll yi ni saloon la ñaanoon ko yàlla ba sunu boroom nangu ko lii bokk ci li koy firnde ndax ku xamoon ci moom dara wala nga fekkee woon ci doxinam dara wala ñu nett bi ca dara soo gisee lu mel ni lu ci barabam da xam ne yéeneem lenn ci ay yéeneem moom la ko sëriñ borom di xëy na kon sëriñ bi nee na yéen nga xam ne yéen seq ñaari daayira yooyu muy daayira Mafatihul Bichri ak dee daayira bi nga xam ne mooy daayira turandoo yi sëriñ bi nee ginnaaw ba mu leen sante ba noppi gërëm leen ñu ngi leen di dolli ngeen gën a dolli góorgóorlu ci liggéey bi ngeen sos fas ci yéene ànd ak yéen nag jàppale leen ci ba fu ngeen bëgg mu àgg fa saaboor man ko fa àggale waaye nag ci kaw ak way ak pas-pas ak àndandoo nekk benn loolu moom bu ci amee dana ci sawar lool moom njaboot ji topp ci ginnaaw tàmbali nag yomb na lool ñëpp a ko mën li jafe mooy tàmbali ba noppi mu àgg fa kon mbir la moo xam ne pas-pas a koy pas-pas a leen mën a gunge ànd ak woy ak yéenante jàmm ba nag loo nekk benn tey tey tey dimbalante ci xel di dimbalante ci lépp loo xam ne dana tax liggéey bi mën a sotti loolu nee na mi ngi leen koy dolli ah lii ngeen def nag nee sant na leen ci bu ndax yàlla mi leen xiir ngeen jëm ci moo lay xamal ne mbir la moo xam ne am na mag mu ci dugal xol mag mi nag weesuwul sëriñ Abdou sëriñ Moustapha ñi ko jiitu am na ñu ko wax léegi gannaaw ba mu doonee mbokk sëriñ Touba ba noppi nag ci fànn yëpp ku nekk xam na ne dafa jaayoo loolu lépp jël ak taalibe rek teg ko ci kanam def ko lam bi muy li bi muy niitay loolu bi muy jaxal ku ne xam na sëñ Aliou ak taaliba rek ko ñawal ak taaliba rek ko samoon kon su ngeen demee bañ lañuy tuddee ay sët ñuy tudd ñi ñuy tudd ay sët ci moom ngeen ñëw taxawal bis bii ku xam dara ci mbiram du la jaaxal kon ngir mu sax ba mën a àgg fa mu jëm lu yomb lay doon ndax defal nañ leen fondement bi li ciy jafe-jafe lépp yi teggil na leen ko lenn rek moo ko mën a yàq muy ngeen gis ci àdduna walla ngeen gis ci seen bopp wala ngeen dugal ci ab xaccoo wala ngeen dugal ci bëgg àdduna yooyu moom du ci am rek bu ci rocc rocc boppam day rocc loxoom te bu roccoo loxoom rek liggéey bi du àgg ndax moom ku la xam na ne lépp lu mu doon def yàllay kese ak Serigne Touba rek ci la ko doon def kon képp koo xam ne bëgg nga koo liggéeyam ñaar yooyu ngay jël ànd koog li nga koy liggéeyam waaye boo ci dugalee lan la ci bëgg rek mu rocc loxoom te ku rocc yi loolu ne la muy leen koy dolli ngeen bàyyi ko xel bu baax bu dul dara it àndandoo gi ngeen di ànd xamante di sottante xalaat di dimbalante loolu rek daf koo jar rawaate na nag mbokki deret yi nga xam ne teew nañ fi ak mbokki taaliba yi nga xam ne teew nañ fi ak mbokki dëkkandoo yi nga xam ne teew nañ fi te kenn ku ci nekk jàpp ne mbir bi bu fekkonte ne lu benn loxo def wala benn jëmm mën koo def ñu mën koo def moom donc kenn ku ne ñi fi toog am nga yéene ju toll noonu ci sëriñ Aliou kenn wérante wu kon nag nee na mi ngi bëgg a guddi te bis bi suba la te jataay yàgg na kaddu daal kàddu gi daal weesuut kaddu cant ak soññee nee na daal xolam sedd na ak mbooleem jabootu sëriñ Aliou gi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw ak mbooleem taalibe yi ak mbooleem mbokk yépp di ñaan nag ci barkeb Serigne Touba suñu boroom dafa leen ngeen ay mag mag yi diine yu teg seen tànk ci siraatal mustaqim ak fas yéene tëpp ci ndigal yi Serigne Touba yi te lépp loo xam ne luy firf ndaw la ba tax lan lañ bëgg ci moom ak yaakaar ci moom du ko mën a du du accès ci moom yàlla na la seen maam ju baax di dox seen digganteeg moom. loolu li ngeen yéene ak fa ngeen bëgg ak ngeen àgg fa te lépp ñu fekk ko sunu xol seetu na buy jërë ngeen jëf. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu jërëjëf waaye na toog na tàllal loxoom te wax amin amin amin amin amin amin